atelier bi nga xam ne moom la ñu taxawal tey jii li ko taxa jóg mooy ñu amal benn cycle préparatoire mooy at moo xam ne dañ ciy tàggat ay ndongo yoo xam ne ñoom amuñu baccalauréat scientifique ay dañoo bac lañ am ñu fexe ba jox leen xam-xam yi nga xam ne en science ba ñu mën a def formation scientifique am fii formation yi nga xam ne wàllu médecine la muy faj ak formation yoo xam ne wàllu mbay la agronomie ak yeneen yi nga xam ne yeneen domaine la ay métiers voilà donc euh, ndax dañoo gis ne ci Sénégal ak ci Touba rawatina Touba bëri na ñu bëri ñoo xam ne dañu am ay ay bac dañu am bac waaye bac littéraire lañu am arab bu ñu seet bu ñu leen seetaanee du ñu mën def leneen lu dul jàng yokk seen xam-xam ci wàllu diine loolu baax na gaa. waaye buñ ci mënee dolli xam-xamu science mooy nekk ay médecin mooy nekk ay ay ingénieur loolu yëpp day day day gën a baax rek ci réew mi gën a baax ci waa waaw donc looloo waral tey ñu invité su nattango yu bëri rawatina institut de santé de Mbour ñoom ñu xam am nañ ci expérience ak ñeneen pour ñu xalaat xool nu ñuy fexee ba taxawal année préparatoire boobu ba ñi nga xam ne am nañ bag déwén ñu mën leen a waajal. tàggat leen at moo xam ne ñoom bu ñëwee dina mën a am am jàppandal ba mën a def formation scientifique yi nga xam ne moo am fii ci université bi. maa ngi tudd ba Baouri maa ngi nekk directrice su institut supérieur de santé de mbuur nga xam ne c'est un centre de formation professionnelle bu basé au niveau du département de Mbour mais aussi d'enseignement supérieur. di jaajëfal sëriñ bi surtout li nga xamante ne ak euh, le le le le le recteur de l'université bi nga xam ne dafa am confiance ci ñun wooluñu ci expérience boobu nga xamante ne jot nañ ko taxawal ci Mbour yàlla dafa def euh, di 2016 2017 bi nga xam ne programme orientation bachelier yi dafa amoon dañu amoon ci loowu bachelier yi ñu orienté woon de bacheliers arab bi ñu leen jotee nag il a fallu ñu def lu ñuy wax un remise à niveau xam naa moom la ñuy wax classe préparatoire pour que ñoom ñu mën a compétir ak étudiants yi nga xamante ne bac français la ñu am pour ñu mën a am diplôme bi nga xamante ne moom lañ leen doon préparé muy licence en sciences infirmières et obstétricales particulièrement la diplôme d'état d'infirmier et de sage-femme donc ci lañ leen defaloon tàggatoon leen ci at defal leen français defal leen mathématique defal leen informatique defal leen SVT pour que ñu am prérequis yi nga xamante ne moom la ñu manqué woon pour ñu mën a am diplôme bi nga xamante ne moom moo leen di mën a permettre ñu exercer. classe boobu nag bi ñu ñëwee am ko dañu liggéey lu bari ci assurance qualité donc je parle sous le contrôle de docteur Khadim Diop mi nga xamante ne moom moo yore assurance qualité établissement bi dañu liggéeyoon ci programme yi xool gëstu. lan la lan la étudiant wu bi nga xam ne bac arab la am lan moo ko manqué comme prérequis pour mu mën a def formation boobu biñ ko xoolee gëstu ko li ci gën a bari dañu gis ne mat la SVT la informatique la français ñu jàngal leen ko ci at d'abord préparatoire mais tam ñu gunge leen ci ñetti at yi nga xam ne moom lañ def licence ñu am ci nag ndam lu rëy ci at yi passé ndax euh, non seulement étudiants yi ñu yónnee woon am nañ diplôme mais aussi Euh, major national bi nga xamante ne moo génn daaw si diplôme infirmier d'état sage-femme muy Ndeye Amy Sylla bachelier arabe la